aus billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi fi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara te di leen balu ak di balu ak ñépp te di leen ndokkeel ci fan yi ñu nekk ak rawatina wu tedd wi ñu jublu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko di jiital ci nuyoo bi ci jataay bi sëriñ Afia Bousso imaam mi nga xam ne mooy jëwrini liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ Touba ci jumaa ji te daayira mu xaddamatul xidma di ko taxaw ñuy am mbégte bu baax a baax ci bis bi ci ñaari fànn yu bari ndax bis bi nga xam ne daanaka ci la soobu ci liggéey bi muy bis boo xam ne nag jekk dañ ciy daje ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu koom-koom te nekk ci dëkk bi moo xam ay commerçant lañ wala ay mbulaañse wala fànn bu mën a doon rek opérateur économique yi te ku xam cosaanul ndogu yi ak euh, liggéey bi ñuy def fii xam ne ci sosu gi euh, bëri na ci loo xam ne ci ñoom la jóge moo tax at mu jot ñuy daje ak ñoom fii ngir lire rapportu daaw bi muy lépp loo xam ne moo rot mooy budget bi ñu dajalee ak fi ñu ko dugal fenn fu nekk la ca dugg ñu xam ko loolu liggéey boobu xam naa Sëriñ Abdul Ahad Muxtaar dana ci ñëw bu ñu tàmbalee liggéey bi waaye lii tamit ñuy ñuy def nii dafa dëppoo ak lii ñu war a def ci kanam mu mel ne tamit euh, du asaar ci tombe gi liggéey bii di liggéeyu koor gi dafa ñor bokk taalibe yi nekk ci biir réew mi rawatina waa bitim réew lool sunu bokk yi nga xam ne ñoom lañu toogal di daayira Serigne Touba bi nga xam ne moo nekk ca Touba Rimini ci itali e, dama xamul nu ñuy tënk seen kii bi e, e, Emilia Romagna Marche ak Emilia Romagna Marche nga xam ne benn province la boo xam ne ma ngi ci itali Euh, kër suñ Touba gi nga xam ne bokk na ci gën a rëy ci Italie ñoom ñoo ko jënd di fa def liggéey bu rëy rëy rëy bu am am solo ci taxawaayu sëriñ Cheikh Awa Balla mu Cheikh Amadou Fadal kenn ku nekk xam ne ku jàmbaare la ci liggéeyu jumaa ji rawatina ci koor gi ak ci ci lenn lu nekk lépp lu dayra bi soxla rek ci ni mu liggéey bi xam ngeen ne waa Pontevico am na ay kaas yu ñuy indi at mu jot daaw jéeg bay seexaw balla bi mu demee kër sëñ Tuubaa gi ci rimi di waxtaan ci ak jëwriñ yi ñoom tamit ñu tàbbi woon ci liggéey boobu ba daaw ñu indi fi lim bu kawe boo xam ne mat na cent mille daanaka ci ay kopp léegi nag bi nga xamee ne euh, ñaari kii yooyu dañuy daje muy jëf ji waa Ponteco di indi ak ak ak ak ñoom seen jëf ji biñ yi waxtaanee ba Seexu Balla waxtaan ci ak ñoom nag ñu ne léegi daal ñoom dañuy li ñu def mooy dañuy seet li nga xam ne moom ci gën a farata ci koor gi ñu sasoo ko muy suukar léegi ñu ñu jël limu kopp yooyu remplacé ko ci suukar loolu nag mu doon loo xam ne liggéey nañ ci liggéey bu kawe njortu ren jii indi fi lu lu tolloog deux tonnes quatre cent ci saakoy suukar muy quarante-huit saak ñeent fukki saak ak juróom-ñett loolu nag kon moo tax biñ ñëwee teew ci jataay bi ñu dalal leen ci turu sëriñ bi dañ leen di nuyu di nuyu jëwrin yi sëriñ daam daam lay mi nga xam ne mooy jëwrini liggéey bi di nuyu tamit sëriñ seex kànji ak sëriñ seex loo euh, ak kilifa yi fi nekk yépp di leen yóbbante nuyoo tamit ci sëriñ seexum seexu naa mbàkke sëriñ seexu naa mbàkke euh, moom it bokk ci jëwrin yi foofa ñu ngi leen ci yóbbanti nuyoo moom kon su ko defee dañuy jox kàddu gi sëriñ daam lay wala sëriñ Cheikh Lo bu defee dina leeral liggéey bi ak bokk yi nga xam ne teewuñ ci jotaay bi tey seetaan vidéo bi ngir ñu xam ne jëf ji agsi na ak uh, yi ci aju ci war a leeral yépp sëriñ Cheikh bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu daayiratum xaddamatul xidma ci turu Serigne Cheikhouna Mbacké ni nga ko waxee nga xam ne kilifa la fa ànd ak yeneen i kilifa waaye buñ ko tuddee rek dana yóbbaale ña fa ne euh, nuyoo boobu itam ñu di ko teg ci turu turu ñu di ko teg ci loxob Serigne Dame Lay mii nga xam ne moom lañ feggool nga xam ne daayira Cheikhul xadim ya fa nekk moom mooy njiit li te bu teewee président daayira Cheikhul Khadim yëpp teew na ni nga ko waxee ci Emilia Romagna Marche Abruzzo waaye. Serigne Cheikh Kandji maire rek bu ñëwoon ànd ak kenn te indi ko liggéey ba mat na ndax ñun ñëpp danoo tënku ca kër sëñ Touba ga euh, te kër sëñ Touba ga day kër gu yaatu digg bu yaatu ñoo ko ñoo ko ñoo ko séq euh, kon mel na ne ñooñu bu nu teewee rek doy na sëkk waaye danoo ànd ak ay yeneen i jëwriñ ku mel ne sëñ Abdou Fall Touba Rawena ak sëñ Modou fay ak sëriñ Baye daam jóob ak sëñ Ahmed Seck ak sëñ Modou Cissé. ak ñeneen ñoo xam ne jamono ji moo xat waaye kon mbooloo dana fi ñëw waaye nag amaluñ solo mbooloo mi lin amal solo te di ko sàkku si mooy luñ leen di jébbal ci turu sëriñ bi tey ñaan ngeen ñaanal nu ba duñ ne sukkar waaye lu dee fi jëfandikoo ci yeneen ak yeneen muy jóge foofa ndax ab taalibe fekk xerut fësut duxut kon na ngeen nu ñaanal ci barkeb fii ñu ne ki tax ñu di ko indi mu nangu ko te ful ko loolu rek moom mooy kàddu yi kon ma jox sëriñ Dame Lay ndax moom moo fi teewal président daayira Cheikh Khadim yi te buy wax it day wax ci turu sëñ Cheikh Kandji mais nga xam ne moo jiite kër sëñ Touba ga euh, jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu sang bi toog di sëriñ Afiye Bousso ak mbokkam yi mu dendal yépp suñ ci tuddee Abdou yi danañ yóbbaale ñi ma teewluwul seeni tur ñu ànd ak délégation bii ma àndal ni ko sëñ seexloo lime di wax ci turu daayira yi nekk ci Émilie Romagne Marc yépp waaye di wax ci turu sëriñ Seexuna Mbàkke mi nga xam ne moo fay suñ jawriñ ci ndigalul Seex Muhammadu Murtada Mbàkke Cheikh Mouhamadou Mourtala moom xaadimu rasul mi nga xam ne moo ubbi frontières yi sos këri sëñ Tuubaa yi wala këri lislaam yi bañ mën a liggéey liggéey yu yéeme yi ngeen dégg ñu di ko liggéey ci biir Europe yépp waaye suñ gox boobu di Émilie-Romagne Marque bokk ca ñu mu sos loonu fa kër goo xam ne këru sëñ Tuubaa goo xam ne bokk na ci kër yi gën a rëy ci àddina bi ni ko sëñ Abdou Lahad waxe léegi ndax kër ga mat na vingt-huit mille mètres carrés kuy xool internet gis nga mbay mu yéeme mañ fay bay ci diggante gerte ak kànja ak yépp yu ñuy jëfandikoo fii ci senegal léegi noonu ko fay bay di ko jëfandikoo ci kàttanu seex sëriñ bi kon sëñ Afee ñoo ngi lay seere liggéey boobu liggéey bi ñu fas yéene ñëw ànd ko ak yéen nag ca daaw ñu indi woon ay kopp ñoo ngi nuyu sëñ Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mahmoud Fadal lu baree bare di yàlla guddal fanam te wéral ko ba mu njëkkee ñëw daf ñoo waxoon kopp yi ñu teg ko ci loxol sëñ naa moom ma tudd léegi sëñ naa tegaat ko ci sama loxo daaw ñu indi woon téeméeri junni kopp ak ñaar fukk waaye comme ni ko sëñ Abdoulaye waxee ñu tase waa Brescia ren nag bi sëñ Cheikh Awa Balla dellu waatee mu xamal ñu ne ñu kopp yi comme waa Brescia daan nañ ko indi te indi woon nañ ko ngeen tase fa te la jumaa ja soxla bari na ci weeru koor wi dama bëggoon ngeen soppi indi sukkar ñu ne ko nun daal soobu nañ ci ànd ak yéen ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa boobu ci koor gi ndigal luñ jot rek danañ ca dox mu ne kon andi leen sukkar biñ ci yëngutoo nag xay na fan bëggoon mu àgg fa àggunu fa waaye nu indi deux tonnes quatre yi barkeeloo ko ren bëgg nag sëñ aafe ngeen ñaanal ñu ba su déwénee euh, ndax jotoon na ma laaj bañ ne ma cent cinquante sac la ñuy soxla ci biir weeru koor wi waaye kon ma bëgg ngeen dogal ñu ba bu ñu fi dikkaatee déwén 150 saa yi moom duñ ci manqué benn saaku loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne bëgg nañ ko sof ci li sëñ Seex wax mbooloo mi fi toog nag toogal fi waa Émilie Romagne Marc bépp ñu ngi sant tey gërëm di ñaan yàlla guddal seen fan te wéral leen ndax léegi sëñ Tuubaa képp ku wax ba boole la ca benn waxtu wala benn saa rek mënatoo koo fay te nag. seen waajur wu tedd woo muy Cheikh Mamadou Mourtala yàlla na yàlla yokk ay leeram ca taas ci barkeem moo ñu nan ndaxtal ci liggéeyal sëriñ Touba ubbil ñu ay bunt ubbil ñu ay yoon ñu jaar ci ànd ak taawam bu tedd bi Cheikh Mame Mor Mbacke Mourtala di ci dox doxin woo xam ne àddina bépp ña ngi ciy teg seen bët kon sëñ bi ñoo ngi wàccee kàddu yi foofu ndax li aju ci jataay bi yaatu na lool jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa sëriñ Cheikh jërëjëf sëriñ Dame Lay ci kàddu yu rafet yi ak pësteef bi sëriñ bi ñu leeral la ne la jëf yi muy kopp yi ak suukar si njëkkul ci jëfi waa Rimini ci jumaa ji ak daayira Muxaddamatul Xidma ndax depuis 2012 ci tournée boobu nga xam ne daayira bi àndoon na ak sëriñ Mamor mu Cheikh Mamadul Murtada ci càkkuteefam te biñ demee ci seen journée boobu ñuy def le 12. le du juin ñu joxoon ñu kàddu ñu leeral liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ak ni mu demee ca lañ engagé wu woon ba léegi ci ànd ak daayira bi ci entretien bi ak ci doxin yi ci lépp boobaak léegi nag lii dafa ñëw gën a ràññ ko waaye euh, seen tànk teg ko ndax suñ daam mi indi na fi ay nappi ak ay bagages yu bari ba tey wax dëgg yàlla ci koor gi fii kon lii dafay dabe rek ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm kon su ko defee sëriñ bi nee na naa jox kàddoom sëriñ Abdou Lahad mu tontu leen suñ noppee ñu ñaan bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala aleykum wa wa barakaatu sëriñ daam ñu ngi lay delloo nuyoo ci turu sunu kilifa sëriñ Afia Bousso mi toog nuyoo bi nekk ak ziyaara bi ñu di ko tàmbalee ci kilifa ak murit yépp di Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéeneem ci liggéeyam sëriñ Tuubaa yi te nu ànd kook moom ñu leen nuyu di nuyu waa Touba nii yépp di ko jaare ci saw ak kilifa yu tedd yi nga àndal di sëriñ Cheikh Lo ci sa wet sëriñ Cheikh Kanji sëriñ Abdou Fall ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoom nga àndal ak ñi teewut itam te bokk ci liggéey bi di leen sant ci turu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne liggéey bii ci loxoom la jaare waaye di leen sant ci turu Serigne Mame Mor moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne moo sàkk woon ci daayira bi mu sàkk ndaw boole ko ak moom mu ànd ak moom wër àdduna bépp nuyule leen ak ñoom xamale leen ak liggéey bi itam. ñu di ko sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal loolu ñu ñaanal kilifaam gu tedd ga guddi Cheikh Mouhamadul Mountakha di leen sant nag ci liggéey bu am solo bii nga xam ne liggéeyati ngeen ko ren mu jëm ci wàllu koor gi te ni ko sëriñ Abdoul Ahad waxe léegi mu doon bis boo xam ne bi mu ñëwee bisu xéewal la ndax daje na ak bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy ubbi liggéey bi bokk yi toog ñu di leen nuyoole ak ñoom ñoo ñi sos liggéey bii di ndogu yi nga xam ne tey jii ñëpp fekk si nañ leen ci tey sos ko sosin wu rafet waaye ànd kook nun àndin wu rafet te boobu ba léegi tey wuñ bàyyi wuñ yokki wuñ ku ñëw rek da nga leen cee fekk mu mel ne nag day liggéey bu ñu nangu ndax liggéey bu ñu nangu mooy boo xam ne soo ko xase ku ne mën na ko ubbi waaye boo ko xasee ubbi nag moomatoo ko toog danga koy bokk ak ñëpp képp ko ku ku ku jëfam nangu rek day mën a dugg ci biir liggéeyal Sëriñ Tuubaa nag bu nangu yomb naa xam boo koy tàmbali tàmbali bi mën naa sew waaye lu mu gën a jëm kanam di gën a yaatu liggéey bii nag kon wane na ne liggéey bu Serigne Touba nangu la ndax bañ koy tàmbali lu tuuti la woon loo xam ne yaakaar naa ñoom ñii ñu ngi ni toog waaye budget bu njëkk ba ëpp toon million te daaw dem nañ ba egg ci juróom-benn fukki millions yu topp xam naa ci kanam tuuti dana leer loolu day wane ne liggéey bi mi ngi jëm kanam bu baax a baax as sa ndaw la daan doon ci jumaa ji léegi dem nañ ba daaw yokk bii ngeen di gis wër na ba egg ci fa mu tollool ci kër Sëriñ Saliou fépp fees loolu nag day wane ne kon yokk na yokk goo xam ne yokk gu rëy rëy rëy la bu ngeen ñëwee nag tàbbal seen liggéey ci liggéey ci liggéey boobu mu dajeeg bés bi ñuy tàmbali liggéey bi kon li sëñ Abdou Lahad waxoon léegi coïncidence la lay nuru waaye doonu ko dafa doon rek ne liggéey bi mi ngi tàmbali suñu borom xéewale na leen ngeen bokk ci ñi njëkk a tàmbali loolu nag ak sant yàlla gu rëy la waaye ñu ngi ci leen nag bu baax a baax ndax ak farlu lay su ñu demoon ba ci biir koor gi ndax li ngeen li ngeen indi waxtu wane lañ koy soxla suñ demoon ba ci biir koor gi ba ci fukki fan yu mujjee ngeen indi ko dana daje ak ñu soxla ko waaye indi gi nii nag mu jiitu tàmbali liggéey bi day gën a dalal xel ci ñi koy seq ñëpp tax na ne kon ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm tey sant nag ak gërëm mbooleem koo xam ne def na ci ñaqam ak fu mu mën a nekk ci biir Italie di leen xamal ne liggéey bi nga xam ne moom lañ leen doon soññi mu jëmoon ci barab bii di jumaa ji mboolem lu ngeen tegoon ci seen loxo agsi na ba fii ci jumaa ji ba réceptionné nañ ko tey jii def ko fii yàlla taw feexen leneen it mu bokk ci li fi jiitu nga xam ne fan yi ñuy tàmbali liggéey bi seen jëf lañ koy tàmbalee ndax suukar moom bis bu des na ko def te suukar si moo fi jiitu kon mel na ni mooy ubbi liggéey bi kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey ñaanal suñu borom mu yokk leen te gën leen a dëgëral te gën leen a taw féexal ci barke Sëriñ Tuubaa gën leen a xiirit ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne képp ku ko liggéeyal jariñu àdduna jariñu àllaaxira lii mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoona a tënk ci turu sëriñ Afia di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax te di leen soññi bu baax ndax jàmbaar rek la ñuy jàmbaar rek la kañ jàmbaar rek la gën a eh, sant muy gën a góorgóorlu jàmbaar googu nag moom lañ gis ci yéen moo tax ñu leen soññi waxtu wu nekk ñu ngi leen sant bu baax di leen bu baax tey seereel sëriñ Cheikh Awa la di seereel seriñ Mamor ne lañ leen santoon yéen a ngi ci te yéen ngi koy def ci dem gën a rafete wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.